mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi ñuy teewlu ci seen site numéro 1 de sur mobile beneen amati na fan la amee ca confrontation émission bu mag boobu suñu jigéen Bijou Ngoné bu 2STV di présenté lan moo fa xew fan yi nu génn gis ngeen ni Kounkandé def na is baagam delluwaat na ci réew mi ba nu invité ko ak yeneen i maanaam euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ca la ñu yëngu ci wàllu euh, sëriñ ci wàllu ñaan ak ci wàllu lu ñuy tuddee médecine traditionnelle waaye daf ci am koo xam ne dafa soloon dafa dafa dafa dafa gànnaay waaloon jël maam Cheikh Ibrahima Fall te moom jëf yi muy jëf dëppawul ak li nga xamante ni moom la góor gu tedd góog di maam Cheikh Ibrahima Fall daan doxalee ca jamono ba tax na njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu daal koy ñawlu lool ban ka ñaawloo nag mbiri àgg ca CNRA conseil national de la régulation audiovisuelle daa dee addu bind benn bataaxal nag génnee ko ngir sanctionner émission bi ba pare interpeller leen à ce que prochain numéro gii du ñëw nanu fexe manquement yii nga xam ne dañ koy seetlu te dëppoolu ak article yi nga xamante ni image yaa ngi noonu di leen ko woon ca communiqué ba dañ koy tere ñu fexe dindi ko te tamit ñu présenter seeni excuse famille maam Cheikh Ibrahima Fall rawatina maanaam ci kër diine nga xam ne ñoom ñoo ne ci réew mi ndax seen jëf yooyu ñuy jëf dëppoowul ak maanaam réalité réew mi te lépp li nga xamante ni dafay gàllankoor wala dafay indi problème ci dunduni askan wi ci wàllu diine dañ ko war a moytu ndax média mérité na leneen lu dul lu mel nii di am ba tax na daal Sénéra àdduna ci bataaxal gii interpellé maanaam seen njiit di madame Ndiaye ngir mu àddu ca émission googu noonu ñu daal di fexe saafara te saafara googu mooy ni nanu def li ñuy tuddee mettre un terme définitif à de pareils manquements bu ñu ca noppee ñu le prochain numéro de l'émission Confrontation des excuses au Sénégalais et particulièrement à la communauté Baye Fall mu di njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall radiallahu anhu